dégg naa ngeen di wax nii dafa am ay imaam wala ay xalifa yu nen nañu dem jox nit ñi ñu signal leen ñi nga xam ne ñooy leader yi ne duñu def violence ma xam ni ñoom ñi wax loolu ñoo njëkk a def violence parce que violence mu ngi njëkk a commencé ci viole constitution bi te ba ko mag Sall commencé di depuis boobaa léegi amul benn nit boo xam ne da nga nitu diine gu ci tabal si làmmiñ waxuma constitution bi mu wéyoole waaye ni mu wéyooloo àlli réew mi ba Moustapha Ibrahima dem démissionné ñeneen démissionné mu wëlbatiku continuer jël àlli mi di ko jaarale fu ko neex Cour des comptes OFNAC jàpp ay nit ñu sàcc àlli mi defar dossier bi teg ko ci mu wëlbati ku ne moo ci teg loxoom lu tax ñoom mënuñu woon wax ci lu jëkkee ñoom ñu ne ay sëriñ lañu te ne dañoo nekkal yàlla ay caaxaan rek la li yàqri réew mi ñoom ci lañ bokk li yàq réew ci lañ bokk ndax nit ki boo jiitee mbooloo ñu ne dañ laa gëm nga ne dama leen a jiite ngir jëmmi yàlla ak teg leen ci yoon ak bëgg seen yërmande dana am loolu doo ko doxal ci seen kaw ñi fi wax ñépp bëgguñu réew mi bëgguñu nit ñi am jàmm seen bopp lañ bëggal seen jàmm ak seenu njaboot kilifa gu gu bëy gu tukkiwul defoo commerce defoo dara ñu yëkkati passeport diplomate jox la yëkkati passeport service jox la nga ne nit ñi laa nekkal te loolu ñu lay jox alal waa réew mi la te bari na ci nit soo xam ne ñëpp passeport diplomate lañ leen jox fan lañ ko teg yëfi jàmm yëfi ñi ñi bokk lañ leen jox ñu ko jariñoo soo fi ñu dagg di leen ko jox ñu wëlbatiku di ko bay di ko faje seeni soxla au moins ku mel ne sëñ Cheikh moom sëñ Saliou sax xëy na am na lu mu tànne parce que moom mi ngi bay di ko tabax ay juma di jënd ay terrain di ko tabax ay juma ci sama gis-gis bu gàtt noonu laa waxe foofu waaye wax ma leneen kenn koo fi def ñun ñu nekkoon Europe amoon avant ñu ñibbisi amoon nañ hôpital yoo xam ne dañ ko fee tabax ay université yoo xam ne dañoo jàppoon teg ko bañ tabax ko tey ji suñ doom ya fay jàng ñoo gën a seer université yi nga xam ne go état bi leen moom te taalibe yi nekkoon ci àll bi ñoo ko liggéey joxe ko yàlla nag yàlla na yee taalibe yi yee seen xol yi ba nun ñëpp nu dellu jaamu ji yàlla te ji mooy respecté suñu waajur yi respecté suñu njaboot yi jiim leen yor ngir yàlla ndax kenn duñu laaj ëllëg ne la sa digganteeg sëriñ de yàlla duñu laaj loolu de lim lay jëkk a laaj mooy kan mooy sa boroom kan mooy sab yonent ci ban diine nga nekkoon lan ban téere yi sa téere lii la nu sunu borom bi jëkk a laaj malaayika jëkk a laaj ci bàmmeel yàlla na nu sunu borom ba def sunu xol yi jàpp loolu ak sa lam sunu làmmiñe bañ koo fàtte ab sëriñ du aw sant lim doon mooy nit koo xamante ni moo la jàngal baasin ba nga fer iji mën a dem ba mën a tari alxuraan wala nga mën caa xam lu bari loolu di sëriñ li nu rey mooy nun dënn sëriñ aw sant la da ngay fekk ko la jàngal alxuraan nga wàcc mbaa nga bind kaamil ba pare wàcc ko fa dem fekk ko amul santam nga ne ko yow laa jébbalu yow laa yaakaar adduna ak àllaaxira xoole wax bu rëy la indi ci kaw suuf te bi mu indi tàgguwul kenn bu la fiy jëlee du tàggu kenn kenn du ci mën dara nga bàyyi fa kooka dem naan diw yow laa yaakaar adduna ak àllaaxira yow lu ñu la def boo ëllëgee yaa ko teg sa bopp li ñu daal ñun ñëpp noo ko teg suñu bopp te alxuraan nag fi ne wét suñu borom ne qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalit walam yolad walam yakun lahu kufuwan ahad mu dugg suñ nopp yi lu nu gàtt gàtt xam-xam gone gi fer iji boo ko laajee mu wax la lu mu firi nu fab loola ne tegg fi suuf dellooti ne saratin saran lu mu tuuti tuuti ñu tegati loola fa suuf naan yow laa yaakaar àdduna yow yaa laa yaakaar àllaaxira te ki la teg feebar ba di fi jëlee su ruu kooka jëlee na fi room jëlee ñu ko gën ñëpp